képp koo xam ne rekk senegale nga ni man mu am ñu tooñ ñenn ñi euh, ki nga xam ne jàpp nañ ne moom mooy njiitu réew mi ne nañu baalandoor ñëpp naa dajale njaboot gi yëpp xam nga boo ci bëggee ne waruñu baal dafay xaw a doy waar mais tamit euh, ci biir baal boobu war nañu seet li ñuy baale lan la wala ñu dem ba état bi gën a taxaw ba nga xam ne ñun duñu toll ci ay situation yoo xam ne dañ ñu naan nañu baale nañu def loi d'amnistie surtout ci loo xam ne baale ko day xaw a jafe wala loo xam ne digganteeg sa moroom nga ko séqal euh, dafay dafay xaw doy waar mais en tout état de cause niñ koy mën a nattee rek mooy kilifa gi mooy njiitu kër gi mooy njiitu réew mi nga xam ne moom jàpp na ne war na def kem kàttanam pour que njabootam yëpp taje jàpp naa ne lum ci mën a teg rek nit ñi dañu war a njort ne lu baax la.